jërëjëf mbokk xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ziar bi gën a tedd ci weer wi gëna a tedd tey nag ñu am mbégte ak lool ñu ngi fii ci Sacré Cœur war a nag waxtaan ak jamono ji le guide des Thiantacounes ndax ñu ngi jëm suba ci bés boo xamante bu am solo loolu waral tey seen chaîne ñëw ñu naka nag waxtaanee ci li nga xamante ne d'abord moom mooy solos euh, bi lee ndaje ñu war ko amal suba ce sera la 77e édition nga xamante ne fukki fan ak juróom-ñaari weeru av juróom-ñaari fan ci weeru avril ci atum 1946 la woon cette fois ñu koy célébrer pour la 77e édition ñu nara nag waxtaan ci solo bés bi waaye surtout ci weer wi ñu nekk ndax sunu ginnaaw yéen a ngi dégg li nga xamante ne moom mooy xasida jëmm ju tedd ji di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ay bala ñu tàmbali laaj ci ak tontu yi tey sunu gan muy Serigne Saliou Ndigal Thioune di guide des Thiantakoun dama koy bàyyi d'abord mu nuyu ginnaaw bi ñu ko ziyaare mu nuyu téléspectateur yu ñu seetaan jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar bu baax. Euh, maa ngi lay fay lay fay di nuyu téléspectateur yu 7TV yëpp. di am mbégte lool di leen dalal fii ci sama kër. Euh, maa ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki biir réew mi ak bitim réew euh, comme ni nga ko waxee euh, solos daje bi nii mooy daje ba nga xam ni sëriñ Saliou daje woon na ko ak Cheikh Béthio muy loo xam ni moom Cheikh Béthio daan na ko amal ci bi mu fii nekk di ko di ko di ko dundal mu doonoon bis bu amoon solo ci moom mu ci daan woote daan ci woote biir réew mi ak bitim réew nel na ni sax Euh, lu ñu miinoon la ci moom hmm, moo waral euh, mu mel ni lu ñu ñu wone ginnaaw ak léegi ñu nit ñu amal ko solo mm-hmm. nu ko raw ndax noonu nga xam ni jàppee woon na ko day bis boo xam ni bis boo xam ni moo waral lépp ndax bu dajew loolu ak Serigne Saliou kon amaana lii lépp du duñ ko duñ ci yegg mm-hmm. kon maa ngi maa ngi santaat bu baax nag di leen ndokkeel ci weeru koor bi ñu nekk di weeru yërmande moom ci boppam ci weer wi la fi bàyyi ko woon. Mhm. en 2019. en 2019. Mhm. tey di di bis bu am solo ci ñun moo tax euh, ñu bëgg lool ci daje gi. jërëjëf d'abord sëñ bi dañuy ñëw un yaa ngi koy wax ñu ngi ci weeru koor. Mhm. muy weeru yërmande. Euh, d'habitude vous gis nañ depuis vous êtes. ci bopp li nga xamante ne euh, moom mooy cantakoon yi euh, beneen approche beneen touche bu yees boo xamante ne andi nga ko si c'est vrai ñi ngi ci jàngum xasida yi waaye aussi vous insistez beaucoup plus ci li nga xamante ne moom mooy jàngu alxuraan hmm. jàngu kaamil te mu nekk un livre saint boo xamante ne bi muy wàcc ci jamono ji la wàcc maanaam ci jamonoy weeru koor mu nekk aussi loo xamante ne lu lu am solo ci dundunu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit yi boo ñu ci doon waxee rek sëñ bi balaa ñuy ñëw nag cet fois ci ci li nga xamante ne moom mooy célébration du 17 avril cette fois ci nous sommes en 2023 ah weeru koor day day weer woo xam ni day yërmande noonu nga ko waxee suñ borom defal nu ko muy ay xéwal Euh, maa ngi lay fàttali léegi ni la ci weer wi la sëriñ bi euh, wuy ji sëriñ Saalim ci la soppee jataay muy weeru yërmande kon ma ci ñaan muy weeru ñaan euh, ndax suñu borom kat moom dañ koo defalul ëpp ñaan ko di ñaan réew mi sëriñ Tuubaa def ci jàmm def ci tawféex defal na ko defal ko bépp jullit euh, loolu daal laa amoon ci loo xam ni mën naa la ko wax ci loolu. d'accord ci wàllu célébration bi ñu ngi ci jëm suba. incha allah mhm. d'abord ñu ñëw un peu ci solos bés bi. Mhm. signification bi. Mhm. ndax sànq yaa ngi koy wax nee nga lépp foofu la tàmbalee ci ndaje bi. c'est ça euh, moom day day mel ni bisub cant la bisub cant la ndax. Euh, dinaa la wax tuuti rek fii cant gi jóge euh, ndax day mel ni moom daa jóg rek bëgg sëriñ Saliou bi muy am juróom-ñetti at mm-hmm. la ko Serigne Saliou fekk ci tool baayam loola day mel ni li na ko nettaliwaat ko waaye euh, fàttali rek ndax répétition pédagogique voilà mm-hmm. fa ci ak fàttali rek donc bi muy nekk tout tànk mm-hmm. la jël léppam jox ko Serigne Saliou muy ànd ak moom di ànd ak moom ba mel na ni vers les années quatre mu jël bis mu togg ay ñamam yu bari ni daal tey daal yëg naa cant goo xam ne faw ma dem fekki Serigne Saliou fa mu ne ma dem sant ko fa ñëw daaray got la woon ba mu agsee Serigne Saliou ni ko waaw lu waral lii lépp booba fekk na muy naaj bu tàng euh, ñu àndandoo góor jigéen mag ndaw dox naaj wu tàng ñëw fekk si ko ci daara ji bi ñu yegsee sëriñ Saliou ni ko waaw ana lii loo ci jublu ci naaj wu tàng wi ngeen dox mu ne ko xanaa Mbàkke sant si la rek ci la ko sëriñ Saliou ne kon de tey na nga xam ne yàlla bëgg na mhm. yonent bi bëgg na Serigne mu ne kon nag man loolee nga xam ne moo bëggloo yàlla bëggloo yonent bi bëggloo sëriñ Touba man def naa ko muy sama diini ak cant sëriñ Saliou nag daal di ko ci wax lu bare bare bari ci ci ak cant di ko wan ni ko suñu borom diggaloon na ko yonent yi jukki mhm. ba génne ci ab aaya ba xamal ko yi lay cant gi ak cant gi fi mu toll ci suñu borom wax ko it nan la ñuy sant ni ko ak cant bernde la bernde mooy ren yi ngay togg ñam yu neex te bari di ko joxe te doo ci am xëj ak seen jublu ci bég tey bég loola tout est parti ci bis boobu. Mhm. ci wàll woowu mu ci yëngatu di ci yëngatu di ci yëngatu ba tuddee boppam ab cantaakun dinañ dégg sax léeg-léeg ngeen di wax cantaakun déedéet cantaakun. cantaakun d'accord c'est cantaakun d'accord santkatu yàlla. Mhm. santaakun alors euh, kon loola ca ca bis booba ca la loola jóge ba sunu yàlla tey at mu jot. mu koy mu koy def di ci sant di ci di ci di ci sant ci daje bi nga xam ne moom la daje ak Serigne saaliw ci ci ci ci ci lañ dem ba sëriñ saaliw seexal ko. Mm-hmm. Euh, ci lañu dem ba mu gërëm ko defal ko ci ay may yoo xam ni ñëpp gis nañ ko ñëpp teg nañ ci bët ba tey gis ngeen ko sax euh, da ngeen daje ak waa mairie Mermoz ñu ñëwoon fii ngir boulevard boobu nga xam ni moo jaar buntu kër këram ñu war ko ko ñu war ko ko tuddee. alors qu'est-ce que cela vous fait. ah ça moom nag day mel ni moom wax naa ko léegi le maire nee naa ko vous avez marqué un grand ko moom wax dëgg yàlla def ngeen loo xam ni. Mhm. dana neex jullit yëpp dana neex murit yi dana neex cantaako yi ndax foofu euh, day foo xam ne daa ràññeeku ci euh, sëriñ bi. d'abord fa la dëkk. Mhm. mel na ni bokk na ci ñi fa jëkk dëkk. dañ fay dëkk booba amul woon euh, euh, c'était l'ancienne piste y avait y avait pas de goudron waaw euh, bokk na ci ñi fa jëkk tabax kër te Serigne Saliou foofu la ko waxoon mu samp fa gàmmo gi jëkk gi mu ko def la dafa woote na fa ay gàmmo woote na fa ay 17 avril woote na fa. bisu julli korité bisu julli tabaski loolu lépp foofu lañ ko daan defee kon muy barab boo xam ni barab bu miinoon ay activité bu ñu mu dëkkee ko te ba fii may waxee ak yow samedi bu jot loolee mu fa daan def muy sant Serigne Saliou samedi bu jot ñu def ko fa rey fa ay nag togg fa ay ñam yu neex te bari bokk kook jaam ñi fanaanee sant Serigne Saliou bu bët set kon bu ñu demee ba euh, yàlla def yoon woowu am signification bi mu am léegi ci Dakar ndax l'ancienne piste ñëpp xam nañ ni mooy yoon wi gën a mag léegi ci yoon yi parce que mooy relier VDN bi ak wa euh, la route de ci diggante boobu comme mm-hmm. muy yoon wu am solo un point stratégique de la capitale euh, di yoon woo xam ni président la république lu bari daf fay jaar di génn buñ ko tuddee sëriñ bi loolu wax dëgg yàlla ak cant la gu rëy gu mu ñu defal te da ne dana tax ñuy fàttaliku sëriñ bi. alors tey bés bi xat na mais terewul nga nangu wax ak mm. téléspectateurs yi wax ak askan wi euh, li nga leen di ñaxaat rek lan lay nekk ndax bés bu am solo la mm-hmm. ci diine mm-hmm. l'islam mm-hmm. pour seen taxawaay par rapport à la célébration de ce de ce jour muy de ah, Saint-Raphaël li may wax euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi mooy rek ñu xam ni ci yàlla lañ jóge ci moom la ñuy dellu te ëllëg lu mat a sedd na nuy xalaat ëllëg euh, ndax suñ borom day euh, ku ku xarañ la doomu aadama nag day mel ni noonee ko Serigne Saliou waxee woon rek lépp loo xam ni defoo ko ci sa biir bàmmeel bu ëllëgee doo ko fa fekk kon liggéey bi fii la liggéey bi nag weesuwul ne ci li yàlla digle mm-hmm. li sëriñ tubaab digle sàmm sa diine sàmm sa ngor fexe ba bu ëllëgee euh, euh, buñ lay nettali comme sunu ñu mag ñi ñu baax ñi fi jaar ku mel ni sëñ Béthio lim fi def bu ñu koy nettali muy neex ci sunuy xol kenn ku ci ne war ngaa sàmm ëllëg ba bu bu bu bu buñ koy nettali mu doon loo xam ni nekk li bu rafet lay doon lu amuk taalube lay doon lu am diine lay doon lu ràññeeku lay doon ci yoonu l'islam alors cette 77e édition bonne touche personnelle lay am. parce que on se rappelle en 2020 malheureusement il y avait le Covid mais daaw célébré nañ ko ren aussi dina amaat beneen célébration ban cachet lay am. Euh, ren li ci gën a mooy benn fan lañ ko daan def mooy le 17 avril. ci lañ daan yemale lépp. Mhm. ren nag dama ko def ñetti fan. d'accord le 17 le 18 le 15 ah le 15. le 16 le 16 et le 17 et le 17. d'accord. donc ça va être le samedi. Ouais. le dimanche et le lundi. le lundi. donc euh, bis baa ngi noonu. Mhm. Euh, loolu moo ci doon particularité ren. d'accord te bis yëpp ay bis lay doon bis yi sant lay doon. Mhm. liñ ci def liñ ci digle ci ak cant lépp danañ ko ci def mooy danañu ci rey ay nag. Mhm. danañ ci bernde danañ ci woo gan yi. Euh, li nga xam ne lépp dañ koy def ci bisu 17 avril bi dañ koy def ci bis yooyu moo tax maa ngi ciy woo bokki taalibey murit yëpp ak bokki cantaakoon yëpp merci beaucoup sëñ ah. bi le mot de la fin mais surtout appel bi ñuy lancé ndax moment bi sénégalais yi jaaxle nañ mm-hmm. euh, ñuy bugg a appeler un tout petit peu les acteurs politiques ci dal ak tey pour que ñu mun a léegi li nga xamante ne moom mooy Sénégal li nga xamante ne ñun ñëpp a ko bokk. Mm-hmm. kenn mënu ko séddoo. Mm-hmm. suñuy sët ak suñuy sëtaat appel bi lan lay nekk. ci contexte bi ñu nekk moom euh, xam nga ñun nag ñun ay taalibe lañu. yaakaaruñu ku dul Serigne Touba. te ab taalibe day dox ci ndigal ñun lu Serigne Mountakha waxul. Mm-hmm. duñ ca wax amuñu sañ-sañu wax ci. lu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou waxul amuñu sañ-sañ wax ca bëgguñu sunu kàddu di jiitu seen kàddu. Mm-hmm. ndax euh, doxinu yoon wi moo tëddee noonu lépp loo xam ni gis nga ñu ca rek mooy de sunu kilifa yi ñooñu ñooñu ca ñaax ñooñu ca diggal. Mm-hmm. moo tax euh, li ma ci ñaan rek loolu nag sañ naa ko moom mooy ñaan jàmm ñaan jàmm ci biir réew mi. ndax jàmm ci la lépp xaj. Sénégal c'est rare nga gis ñaar ñooy dajal te bokkuñu. yëpp bokk maa ngi yow wóor na ma ne bu ñu toogoon tuuti waxtaan rek nga xam ku ma xam walla ma xam ku la xam et cetera et cetera c'est c'est c'est euh, yëf yi dafa jegewoo ba euh, lu ci mat di sóoraale. Euh, te ci politique la ñu ne waaye réew mi moom day dox. réew mi day day ça demeure. Mhm. et reste le Sénégal. c'est c'est c'est c'est loolu nag mooy li ci am solo. Mhm. waaw kon euh, maa ngi koy ñaan di ko ñaan acteurs yëpp. Mhm. ñu am dal te te te xam ni euh, suñu borom moom noppi na. Euh, te lu ko soob rek lay def kenn mënu ci dara. waaw loolu moom bu ku ko ci jiital rek di ci ànd ak sa xel. te di nga di nga dal ci li nga xam ni moom ngay moom ngay def. merci beaucoup. voilà sëñ le de la fin peut-être. Ah, xanaa sant sëriñ Saliou la. Uh-huh. di sant euh, sama taalube yi sama taalube baay yi. Mm-hmm. taalube yi nga xam ni moom lañ ma boole. Mm-hmm. waaye di sant euh, ak di nuyu di ziar sama kilifa sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Saliou. mel na ni sax moom li muy génn bariwul. Mm-hmm. jëf ji moo ëpp wax ji. daanaka ku la dégg doo dégg ku la ni dégg naa Serigne Cheikh wax nangam. Eh, mi ngi fii mi ngi ci li nga xam ne moo ko war ci li nga xam ne moom la ko Serigne Saliou bàyyee mu mu yokk ko ful ko ndax ñun eh, on a eu la chance eh, pratiquer sëriñ bi moom sëriñ Saliou mook sëñ mook Cheikh bi waaye ñu ngi ànd ak sëriñ Cheikh di gis ni la sëriñ Saliou daan def rek moom moom lay def. Mm-hmm. sinon daf ko ful. Mm-hmm. bu dee daara yi. yokk na ko mhm. bu dee taalibe yi yokk na ko tey la taalibe yi nga mën a gën a bind ay kaamil mhm. tey la forage yi gën a yokku jumaa yi gis ngeen lim ciy tabax ci biir réew mi toutes les belles mosquées yi ngay gis à travers le Sénégal c'est l'œuvre de Serigne Cheikh mhm. bërki démb vendredi dernier lañ doon inauguré la mosquée de Mbacké foofu nga xam ni stade la de football moom la def une mosquée bërki démb rek lañ ko lañ ko lañ ko inauguré et et ci loolu lim ciy def lu bari la euh, la dernière en date à ici à Dakar mooy la mosquée de des Almadies fii mhm. ci Almadies à la cité Cheikh Amar mhm. actuellement ma nga fay tabax benn euh, euh, daara non seulement tabax nañu jumaa ji ba pare waaye ma nga fay tabax ab ab ab ab école ko école école kon loolu yëpp Euh, ci ci ci ci ci wane rek pas-pas. Mm-hmm. ak dogu gi ñu ñu teg nga xam ni liggéey rek mooy li nga xam ni ak déglu ndigal ci la nekk. kon maa ngi maa ngi koy gërëm di ko sant. Mm-hmm. bi nga xamee ni noppee nañoo gis suñu waajur uuf nañu tegte nañu teg nañu ci yoon mooy liggéeyal sëriñ bi. Mm-hmm. Euh, gis nga xeetu liggéey yi may jox ma koy àndandoo ak taalibe yi cantaakoon yëpp yëg nañ ko mm-hmm. Mm-hmm. mooy mooy mooy liggéey yi nekk xelkom biir kër Serigne Saliou actuellement mm-hmm. barab bi nga xam ni fa la Serigne Touba dëkkoon nekk fa bindee fa boobu ñuy wax Matlabul Fawzayni gis nga ko man lañ koy man lañ koy liggéey loolu day wane rek euh, uuf bu ñu uuf ak dimbali bu ñu bëgg a dimbali suñu jëm ci kanam kon maa ngi koy maa ngi koy sant moom lay jagleen pecc euh, euh, euh, googu di ko ñaan mu yàgg fi tëw ñu tam ñu ngi koy ziar bu baax Mbacké jërëjëf jërëjëf Thioune merci beaucoup c'est tout numéro spécial jërë ngeen jëf suba incha allah ñu dellu siwaat largement ci événement bi di ñaan ñu dem si ci jàmm dellu siwaat ci jàmm te lépp lu ci jullit jaamu yàlla na ko sunu borom nangu jërë ngeen jëf merci beaucoup jërëjëf